أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على السلام هيا على السلام هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبور وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمه وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله نودع رمضان أم يودعنا اقتدت حكمة الله تعالى ومشيئته أن لكل شيء بداية لا بد له من نهاية ها هو رمضان قد أوشك على الرحيل إخواني وإن لكل مقيم في حشده الدنيا ارتهال ولكل موجود زوال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام عباد الله فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان انتهى أو أوشك على الانتهاء ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وإن رب رمضان هو رب الشوال وشعبان وبقية الأشهر بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi laaj bi mooy hal nu waddi'u ramadan am yu waddi'una nun nooy tàggu weeru koor wala weeru koor moo nuy tàggu ndax nun nooy tàggu weeru koor wala weeru koor moo nuy tàggu sikk nekku ci ne am na ci ñun ñoo xam ne ñooy tàggu weeru koor parce que weeru koor déwén du leen fi fekk waaye ñan la am na ci ñoo xam ne weer wee leen di tàggu parce que mu ngi waaj a jeex li yàlla dogal ci xereñam ak coobareem mooy njël benn goo gis am na fu muy jeexee anna li kulli shay bidaaya loo gis am na fu mu tàmbalee waaye am na fu mu yem dañu toogoon ay waxtu ay jamono ay bëccëg naan léegi weeru koor ñëw ba ci àgg ñu ne ay semaine a ci des ba ci àgg ñu ne fan ba ci àgg ñu ne tey la seenu bu jëkk ba ci yàgg ñu ne woor nanu tey ñoo ngi ci ñaata fan loola lay wan ne lépp loo gis am na fu mu tàmbalee waaye bul sori lépp loo gis am na fu mu yem li kulli bidaaya nihaaya tàmbali boo gis am na fu mu jeexee haa huwa ramadan weeru koor a ngi nii qad awsaka ala rahil jeexam jege na ay fan a ci des yoo xam ne ci baaraam lañ koy lim wa inna li kulli muqim fi hashhajihi addunya irtihaalan mbokk yi li yàlla dogal ci coobareem mooy adduna bi lu fi mësane joxeet rek dana jeex loolu la yàlla dogal ci coobareem ak kattanam ak mën-mënam ku dund di nga dee lu fi mës a tooy dina wow lu fi mës a xumb dana tas ku fi mës a teew di nga fi jóge loolu la yàlla dogal ci kattanam ak mën-mënam lépp lu am dina mës a deñ lenn rek kenn rek mooy am te du jeex mooy wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram borom màgg gi ak kattan gi te mooy Allah kooku dong mooy ki am ku fi dul jóge mbokki julit yi fa man kaana yacbudu ramadan fa inna ramadan qad intaha ku weeru koor taxoon ngay jaamu yàlla sa yàlla de léegi mu dee ku weeru koor taxoon nga yeewu fajar di dem jàkk léegi nga commencé waat biddanti ku weeru koor taxoon ngay dem jàkk léegi nga delluwaat ci grand place yi bàyyi jàkk ku weeru koor taxoon ngay sajj sa bët doo xool lu xaraam léegi nga dellu ci waat ku weeru koor taxoon doo déglu musique léegi nga delluwaat ku weeru koor taxoon nga bàyyi sa programme yu araam yëpp jublu yàlla su fekkee weeru koor doo nga taxoon léegi nga delluwaat ci ndax weeru koor a ngi jeex waaye wa man kaana yaabudu allah fa inna allaha hayyun la yamuut ku yàlla taxoon ngay jaamu ki nga xam ne weeru koor da koo fekkoon muy dem fajar jàkk kooku weeru koor day dee bàyyi koog jàkka ji ki weeru koor tax fekkoon mu bàyyi lu araam weeru koor day jeex bàyyi ko noonu mu meloon mu continue ci du am benn changement ndax moom jaamuwul woon weer wi waaye yàlla la doon jaamu ba ci télé yi da nga gis télé yoo xam ne tuuboon nañ animateur ak ay animatrice yoo xam ne dañu ne woon ak ay musiciens yoo xam ne dañu ne woon weeru koor ñun duñ ci tëgg duñ ci fecc amma weeru koor a ngi jeex ñu delluwaat loolu lu muy tekki ñooñu xamuñu yàlla ramadaan lañ xam xamuñu yàlla weeru koor lañ xam waaye ci ñun ñiit ku ci weeru koor taxoon ngay dem fajar jàkk di bërdi bërdi dem sàppe premier weeru koor a taxoon ngay jàng alxuraan weeru taxoon ngay dem tafsir weeru koor moo taxoon nga jub léegi nga delluwaat ci sa caaxaan ndax yàlla taxul woon koor nga doon jaamu koor dee na doon jaamu yàlla nag fa inna allaha hayyun la yamut yàlla mooy buur bi dund du dee te du fi jóg mbokki jullit yi kenn ku nekk ci ñun war ngaa dugg ruq ne maza taallamna min dur min dawrati ramadan aw min durusi ramadan ku nekk ci ñun ba nga tàmbalee di woor ak léegi am ngay fan am nga ñaar fukk ak nangam war ngaa dugg ruq nga ni waaw man lan laa jële ci weer wi weer wi di waaj a jeex lan la bàyyi ak man mba programme bi nekkul woon rek programme mu télévision programme mu rajo nga xam ne ñu bari ci ñun télé yi ak média yi sàcc nañ seen koor te yëguñu ko wala fa ñu waroon jëriñoo dëgg dëgg dëgg télé yi ak média yi fatt nañ ko ba ñoom jotuñu sax jëriñu ci weeru koor li gën a mën a sàcc koor yàq ko mooy média te ñu bari ci ñun média yi sàcc nañ seen koor te yëguñu ko xoola jullit bi woor ba ngoon bay dog yonent bi ne ñetti nit yàlla du delloo seen ñaan ñetti nit ku woor ba ngoon bay dog bokk na ci ñetti ñooñu diggante ndogu cinq minutes ñuy dog li la ci diine santoon mooy nga concentré wu di ñaan yàlla ndax li saaimi daawatan yustajaabu laha ki woor ba ngoon am na benn ñaan goo xam ne bu ñaanee yàlla may ko nga war a ñaan ñu tegal la benn théâtre ndeysaan ngay ree rek ba ndogu jot ba ba ngay lekk tàndarama bi sax bi nga naan allahumma laka sumtu yaa ngi ak ay xaqataay ndeysaan tàndarama bi ay xaqataay ñoo ko dugal ci gémmiñ gi télévision bi théâtre yooyu ak caaxaankat yooyu taaxuraankat yooyu fexe nga yow munatoo muñ sa dund ba saa yu ndog jotee cinq minutes foog nga seetaan leen te xamoo ne ñooñu seytaanee leen a ngemb ci hisbu seytaan lañ bokk wooruñu jaamuñu yàlla di yàqal nit ñi nga topp leen bu fekkee nag média moom programme la defoon fanweeri fan mu programme la ngoon gu nekk am na lu mu lay tegal weeru koor moom ñëwul woon rek pour nekk programme weer weer wi jeex mu bàyyi la ak ay caaxaan déedéet dafa ñëwoon nekk école di la former pour bu weer bi jeexee nga mën a toog càmbar sa bopp gis ne am nga changement waaw kaana ramadan shahru taxayur shahru taxyir weeru koor weeru changement la woon gis nga ñun ñëpp weeru koor ñee suñu comportement dafa changé ba suñu dundin sax dafa changé ba suñuy heure lekk heure naan sax dafa changé suñu heure tëdd sax dafa changé loolu la weeru koor ñëwoon pour ñu changé pour ñu nekk ay jullit ñi daan sàggan ci yeewu fajar ñi daan sàggan ci jàng alquran ñi daan sàggan ci zikr ñi daan sàggan ci tafsir ñooñu mën a delluwaat ci seen boroom jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu pour mën fa sax kenn ku nekk ci ñun mbokk jullit yi war ngaa laaj sa bopp ndax dëgg-dëgg changé nga maaza taallamna min arramadan li anna ramadan kaanat madrasa weeru koor école la woon ñu doon jàng ci moom kuy jàng ci barab nag war nga fa jële xam-xam war nga faa jëriñoo lu tol ne weer bi yàlla tabaraka wa taala yàlla programme nu ndax nu mën a nekk ñoo xam ne bu nu génnee ci weer wi dañuy sell lu ñu njëkk war a gañe ci weeru koor mooy ahamiyatul istiglal al waqt wa xusn برمجته والتخطيط له وقضاء الساعات والدقائق فيما يفيد وينفع yéen samay mbokk julit li ñu waroon njëkk a jëriñoo ci weer koor mooy waxtu wi waxtu wi ñu daan sànq ci ay caaxaan gis nga ñu bëri ci ñun organiser woon nañ seen waxtu xam nañ heure bu ñuy xëdd xam nañ heure bu ñuy julli xam nañ heure bu ñuy dem tafsir xam nañ heure bu ñuy del siwaat xam nañ heure bu ñuy naafila organiser ko waxtu wi pour ñu gañe ko pour ñu gañe temps minutes yi ñu daan sàgg sàggane ñu tëral programme boo xam ne minute bu nekk seconde bu nekk dana del siwaat ci ñun ci wàllu jaamu yàlla loolu mooy lu njëkk lu ñu waroon jàng ci weeru koor mooy gañe temps ñaareel mooy taallamna fi madrasati ramadan ahamiyatu dabtu lhawa hawaash mbokk yi jàng nañ ci weeru koor importance su téye cër yi téye nopp téye bët téye bakkan téye tànk téye loxo ñun ñëpp ñu wooroon def nañ ko koo gis ku woor saa yu gisoon lu araam ci bëtam day téye bët yi sajj ko fexe poñe bët yi ba bët yi du xool lu araam loolu ñun ñëpp defoon nañ ko ci weeru koor nopp yi téye woon nañ ko ba nopp yi déglu luñ lu bon téye woon nañ sunuy tànk ba demuñu fu bon téye woon nañ sunu loxo téye woon nañ sunu gémmiñ ba lekk luñ lu araam mbaa weeru koor du jeex ñu boyalaat cër yi ginnaaw ba ñu téye cër yi fanweeri fan poñe leen di leen yóbbu ci lu neex yàlla mbaa koor gi du jeex ñu bàyyiwaat bët yi boyal leen allahu akbar boyalaat leen ci mbedd mi ñuy xool yaramu jàmbur yi di bànneexuwaat ci cëru jàmbur yi delluwaat di diglu lu araam delluwaat di lekk lu araam delluwaat di dem fu araam li ëpp importance ci weeru koor liñ defoon mooy téye cër yi poñe leen mbokki jullit yi waaye cër yooyu orienté woon nañ leen bi muraqabatillahi tabaraka wa taala ci fuugloog yàlla li taxoon nga téye bët yi mooy xam nga ne am na benn buur jalla jalaaluhu bu la sëpp nga ne da nga koy jaamu mu lay gis di la xool teg gisam ci yow moo taxoon nga téye bët yi ba ne bët yi rusalal yàlla bul xool lu araam mbaa koor du jeex nga ne yàlla moomu nekkatu fi تعلمنا في رمضان لذة الحياة في ظلال القرآن والاستماع بالحياة مع القرآن جانغون نانتي القرآن بوكي بانيخو قرآن كوغيس 24 heures sur 24 jàkk yaa ngi fees gaa yaa ngi déglu alquran koo gis mu ngi gàddu téeréem même bu mënul lire ci téere bi sax dana ñëw ci biir jàkka ji ut benn ruq toog tàllali tànkam ndeysaan boo ko ne looy def fii mu ne damay déglu Qur'an damay déglu tafsir lu tax ma dama bëgg yàlla nangu sama koor dama bëgg nangam mbaa koor du jeex mbokk yi ñu dawaat jàkka yi balaa sax nit ñi daw jàkka yi ñooñu doon waaraate ci jàkka yi ñooy daw jàkka ba pare parce que Sénégal seen programme jaamu yàlla ay guddi la ak ay weer ak ay fan parce que jàng jàngalu leen jaamu yàlla yàlla bi muy tëralal yonent yàlla muhammad programme jaamu da ko ne waabud rabbaka hatta yaatiyaka al yaqin jaamul yàlla ba dee fekk la ci ñun nag dañ ñu ne weeru koor bu nekk nekk leen jullit bisu àjjuma ngeen nekk jullit tabaski ngeen nekk jullit jeex na moo tax gis nga vendredi jumaa yëpp ay fees génn leen ngeen xool korite jumaa yëpp ay fees tabaski jumaa yëpp ay fees suba nag ñu ne yàlla dañuy nelaw amuñu temps tisbaar naaj bi dafa tàng 5 heures marché bi day commencé ak làmb ji dañuy tardé timis day fekk mbër mi di daaneel dañuy seetaan kan mooy daan gée dañuy reer amuñu jot moo tax jumaa kan lay fees Sénégal vendredi korité tabaski jumaa yi fees ba ci tali yi yéen ñi dëkk Sénégal juddoo fi dëkk fi ndax mas ngeen gis jumaa ju fees fajar comme vendredi wax leen ma ban jumaa la ak fan la nekk jumaa ju fees tisbaar comme vendredi takkusaan timis gee wax leen ma jumaa jooju fu mu nekk quatre-vingt-quinze pour cent musulman vendredi ba vendredi la jàkka di fees weeru koor ba weeru koor la jàkka di am nit weeru koor ba weeru koor la jàkka di am nit benn benn góor ndeysaan mu ne ma oustaz ma ne yaa mu ne dematuma jàkk ma ne ko lu tax mu ne xejatuma fa ndax bala may ñëw dafay fekk jàkk ji fees ci biti laay jullee moo tax léegi sama kër gars yi du dem jàkk nangu nañ sama place ma ne ko déet xëccoo ko ak ñoom mu ne ma lu ma gaaw gaaw gaaw day fekk jàkk ji fees allahu akbar léegi bu koor gi jeexee ana ñooñu doon feesal jàkk ji dafa mel ne ay ay extra tres lañ woon yu yàlla wàcce ci kaw asamaan yàlla yéegal na la yàlla wàcce na waat fiis yi gars yi yéegaat nañ ba ramadan yàlla wàccawaat leen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun uffin li qawmin la yacbuduuna rabbahum illa fi ramadan ak a yées ak a bon ay nit ñoo xam ne xamuñu yàlla lu dul koor ak a yées ku xamul yàlla lu dul koor yaa gën a yées ci jaam yi wallahi rabu àll yi ñoo la gën yàlla ñooñu lay wax ne summa radannaahu asfala saafiliin yàlla ñooñu lay wax ne ulaika kal an'am bal hum adal wa ulaika humul ghafiluun yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori alhamdulillahi wahda ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله تعلمنا في مدرسة رمضان فضل اطياد المساجد وأهميته وأهمية الصلاة الجماعة فيها وأثر الصلاة الفجر فيها بالذات ليكون هذا برنامجا لنا بعد شهر رمضان yéen samay mbokk julit bokk na ci li ñu doon jàng weeru koor mooy takkoog jàkka takkoo ak jàkka di nga gis jullit bi nga xam ne ci weeru koor 24 heures sur 24 mi ngi jàkk suba tisbaar takkusaan timis gee yëpp jàkka lay jullee allahu akbar léegi nag weeru koor jeex na góorgóorlu yow mbokk moomu nga xam ne yaa ngi takkoon ak jàkka ji bu la seytaane ko faat ni nga doon góorgóorloo ba régler say portable say montre sa nga yow fajar di dem jàkka góorgóorlul ci loolu bu la seytaane këf taallam naa fi madrasati ramadan fadlul istiqaaz waqta sihr wa aadaai salaati tahajjud wa lazzati zikri wa tadarru wal istighfar bil ashaar allahu akbar ñun ñëpp jàngoon nañ ci weeru koor ngëneelu yeewu fajar ngëneelu yeewu teel 4 heures ñëpp jóg soo génnee ci dëkk bi gis ñëpp yeewu nañ allahu akbar te xam ngeen ne ngëneelu fajar kenn xamul nu mu toll yeewu teel yàlla tagg na sahabatul kiram ci alquran yàlla ne kaanu qalilan min alleyli ma yahja'uun wa bil ashaari hum yastaghfiruun lu tuuti lañ daan nelaw guddi fajar bu jotee dañ daan toog di sàbbal yàlla ba julli jot kon yow mi nga xam ne tàmmoon nga loolu xëdd ba pare def ñaari rakk toog ci sa der ci sa sijaada yor sa kurus wala nga jël say loxo di tudd yàlla di tudd yàlla ba nga dégg asalaatu xayru min an nawm nga julli ñaar rakk dem jàkka ja ngalawaay bu la seytaane këfaat ndax jàngoon nga loolu ci weeru koor tàmmoon nga aussi di naafila guddi fi mu nekk ni ñëpp a ngi naafila deux heures ñëpp jóg am na ñoo xam ne sax une heure ñu julli ba quatre heures dem xëddi am ñoo xam ne bu ñu naafilaa ba pare koor du ñu delluwaat ci jàkka ji la ñuy fanaan yenn mbokk dafa ma woo États-Unis ndeysaan li tax ñun ñun li tax ñun ñu doy waar ñun dañuy yaakaar ne dëkk tubaab yi amu fa ñuy jaamu yàlla mu woo ma jotuma ma toog ñetti fan xool sama portable gis numéro am ma koy rappelé parce que gisuma ko woon parce que damay fay portable sumay tafsir ma woo ko mu tontu ma ndànk ne ma asalaamaaleykum dama nekk itikaaf xaaral ba fukki fan yi jeex après ñu wax mu daal di coupé wala États-Unis d'Amérique ab jullit di fa itikaaf nekk ci jàkk fukki fan yu mujj di fa fanaan mbokk yi nañu yëg ne loolu ci ngëneelu koor la nekk itikaaf waaye nañu yëg ne fukki fan yu mujj yi dañu war a góorgóorlu ndax ñu dajeeg laylatul qadr mais maal asaf Sénégal ngay gis yonent wax yonent yàlla Muhammad ne lii la ñeneen ñëw ne nii la du noonu inna lillahi wa yonent ne fukki fan yu mujj ci la weeru ci la laylatul qadr nekk ñeneen ñu ne du noonu nii la nit ñu bàyyi li Muhammad wax daf li kooku wax ñun fan lañ jëm ki yàlla ne maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ki yàlla ne wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu ki yàlla ne ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul yonent ne fukki fan yu mujj ci la weer laylatul qadr nekk ñun ñu ne non mu ngi ci fukki fan yu njëkk yi ah ñii ñu ne non mu ngi ci ñaar fukki fan yi ah te ba pare beneen bi mooy leylatul qadr nan lañ koy jaamoo ay ndënd ay sabar tekki ay rajo di yuuxu di tànqal nit ñi noonu la ñuy noonu la ñuy jaamoo leylatul qadr est ce que yonent yàlla Muhammad bu leylatul qadr jotoon day takk ay rajo di yuuxu bu bët set di sikkar di tagg boppam naan yaa Muhammad yaa rasulallah yaa fi gën yaa ñu doy yonent yàlla Muhammad daawul def loolu ci leylatul qadr yaay Aysa nee na fukki fan yu mujj ci laylatul qadr ci weeru koor yonente alayhi salaatu wasalaam lu muy def sadda mizara day takk tubayam takk tubayam loo ciy dégg mooy du jege jigéen ñi takk tubayam sadda mizara wa ayqaza ahla mu yee waa këram ñëpp liiri lay bàyyi gone yu ndaw yi sax da leen di yee wa ahya layla ñu dundal guddi gi ba mu jeex waaw nan lañ ko doon dundale julli alquran zikr waaye ay yuuxu damay jaaxle yenn saa yi ñu ne teele laylatul qadr ma dégg jàkka yi ñuy yuuxu talaqaa yoneen yéeg na fu mu jëm fan la jëm foofu du place am inna li kulli maqaamin maqaal place bu nekk dafa am lu ñu fa war a wax am lu ñu fa war a def du place am laylatul qadr kenn du ci tagg yonente bi ndax yonente moomu ko yàlla moo ko moom inna anzalnaahu fi laylatil qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر xoolal guddi gi sax am importance yàlla day wàcce malaaka yi la ilaha illa allah ndax guddi gi am importance malaaka yi dañuy wàcc xoolal ànd ak jibril yàlla dafa ne malaaka yi dañuy wàcc ba ci yàgg mu ne war ruux ak jibril te jibril malaaka la mais daf leen ëpp daraja moo tax ñu darajaal ko loolu moo tax nga ni nit ñi danañ ñëw ak président président du nit si mais dañ ko tegal côté daraja parce que moom moo sut ñii tanazzalul malaika wa ruux ak jibril ñoom malaaka yi lu ñu ursi dañuy ñaanal nit ñi di leen ndokkeel salaamun hiya hatta matala il fajr jàmm yàlla na nekk ci yéen ba guddi gi jeex ñee ngi fecc ñee ngay yuuxu ñee ngay salleeru ñee ngay nelaw ñee nga naa di takki ay rajo di diine takk rajo di way amu ci place kenn jàngul ci alquran 114 saar way leen ma man muhammad ban saar la wax leen ma ko ban aaya la way leen ma man muhammad wala ban hadis la yonente bi ne way leen ma amul ci alquran nan delloo suñu xel jaamu yàlla yàllaa koy santaane aw tëralin la aw doxalin la kon war nañoo ut fukki fan yu mujj ci weeru koor ñu utti laylatul qadr waaye ñu góor góorlu ci waaye war nañ cee génne azaka muurum koor mbokk yi ku woor ba koor gi di jeex fexeel ci fukki fan yu mujj nga génne ci azaka muurum koor su la rawee ci ñetti fan yu mujj yi su la rawee ci ñaari fan yi su la rawee ci benn fan yi su la rawee balaa ñuy julli ji soo bàyyee ba nit ñi julli ji korite ñëwaat nga génne azaka muurum koor sarax nga am amoo azaka te ku ko génnewul sa koor kenn du ko nangu diggante asamaan ak suuf lañ koy aj képp ku génnewul azaka murum koor góor nga jigéen nga mag nga ndaw nga mën nga ko am nga ko sa sa koor diggante asamaan ak suuf lañ koy aj kenn du ko nangu kon loolu tamit war nañu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ki ko war a génne ci kër gi mooy kii dundal kër gi da koy génne ba génneel ko liir bi ñu ëmb ci biir da koy génne ba génneel ko mbindaan mi liggéey ci kër gi nga xam ne moom moo yor dundam fi lay ndogoo fi lay xëddee fi la nekk da nga ko koy génneel ñu góorgóorlu mbokk yi yàlla la ñuy jaamu jaamuñu nit jaamuñu ay nit yàlla la ñuy jaamu ñu xool yàlla moomu nan la bëggee ñu jaamu ko ñu jaamoo noonu soo bàyyee yàlla li mu wax nga def lu keneen wax yowmal xiyaam di nga am problème parce que yàlla yónniwul kooku nga topp yàlla yónniwu ko alquran a ngoog lan la yàlla wax muhammadur rasulullah wala waxul loolu yàlla muhammad la yónni muhammad jàngale diine ji ba dem lu muhammad jàngalewuloon ne lii diine la ku ko def diine da ngay font lu muhammad jàngalewuloon ne lii mooy diine nga ñëw jël ko ne lii la mooy diine te muhammad indiwu ko woon wallahi yàlla du ko nangu ndax yonent moo ko wax man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad képp ku jëf benn jëf man muhammad defewuma ko woon noonu yonent bi nee na yàlla dala koy delloo wa fi riwaya man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله